na ngeen di préparer législatives yi démonstration de force ngeen ngeen di waaj après après demain euh, yéen a ngi wut xaalis aussi pour financer votre campagne comme ni ko Bamba waxee éviter utiliser les moyens de l' waaw comme li ñu wax rek xam nga mode de gouvernance bi transparence lañu wax. Mhm. donc euh, j'ai beaucoup apprécié hier la sortie du premier ministre ou bien du président Ousmane Sonko. Mhm. génn pour def benn fundraising pour financer campagne législative yi lu vraiment euh, mooy noonu quoi xam nga élection législative yi je pense que ni ce sera l'occasion pour le PASTEF ah ak ses alliés ñëw consolider euh, le pouvoir législatif récupérer ko quand pour mën a yeggali li nga xam ni liggéey bi ñu tàmbali teg ko ci ay raay yu baax parce que y a beaucoup yoo xam ne tey jii. Mm-hmm. dans les jours à venir et les mois à venir dañ ko war a mëne parce que dafa bokk ci programme bi man tiituma parce que on en face avec des yoo xam ni avec Euh, parti au pouvoir yoo xam ni daanaka presque dañ nekk ci benn logique boo xam ne incohérence lañ nekk parce que tey jii boo jëlee PDS nga jël APR pendant douze ans ñoo ngi reyante ñoo ngi xeex tey jii nga gis leen ñuy ànd quand même il faut se poser la question est-ce que ñii am nañ idéologie déjà hmm. maintenant pour le cas de Sall et certains de ses alliés c'est normal que Macky Sall tey jii moment bi bu fekkoon liggéey bi muy def jaarale na ko ci yoon heure Mhm. mais fa la daw euh, Maroc la daw lu muy def Maroc tous les plus grands dictateurs fa la ñuy daw. parce que xam nañ c'était pour a ah. ko commencé di xooxatal xam nga lu tax muy ñëw xam nga lu tax mhm. Macky Sall di ñëw. Ah, lu tax muy ñëw. parce que xam nañ dafa soxla immunité parlementaire moom ak ay ministre pour daw. parce que immunité parlementaire boobu muy yóotu. mais loolu ko voté après laa la wax. c'est-à-dire que tey jii. Mhm. tey jii tey jii immunité bi mu yor moo ëpp immunité mhm. wax na ko. Mhm. parce que nee na cour de justice aujourd'hui pour mu nekk en action il faut que quand nga am nga nekk assemblée nationale am fa majorité donc tey jii. ñii defuñu lenn lu dul déstabiliser fexe ba tey jii le le régime actuel assemblée nationale ñu bañ fa am. mais hostilité yéen a ko commencé da ngay nangu loolu. no hostilité bi je pense que ne hostilité bi. Euh, euh, demoon nga sax ba opposition bi dañoo amoon fu ñu xëcc kii leen. non loolu dëgg looloo am parce que tey jii boo xoolee bu laissez dérouler. kan ci ñoom tey jii moo am possibilité mobiliser lu toll ni arena. non arena c'est juste quinze mille places. waaw mais nag nañ ko def nañ ko feesal. man dama ni le 17 novembre. day mhm. nekk gen day nekk euh, benn euh, euh, réaffirmation. population bi second tour lay nekk gars yi dañuy ñëw valider. Mhm. et je pense que ni au mini minimum man samay projection maa ngi ci 150 députés. sur 165. waaw sur waaw sur 100. merci beaucoup waaye jërëjëf di la remercier.